naka mu. naa ngi si kay. yaa ngi si jàmm waaw ñu ngi si jàmm. noo ah. ah, bi instant yii naa ngi fubal de ñu ngi si kawam de ni instant yii nii yokku ñaan rek 77e minute amoon nañu penalty léegi mais arbitre instant yii moo ko annulé bilaay walaay talaay mais Sénégal instant yii nii moom dañu war a ñafe quoi fubal. am nga ah, naa si yaakaar des ah instant am naa pression nag wax dëgg na yàlla nag. am nga pression am naa pression bu baax fii gars yi fa am pression instant ñëpp Sénégal la ñu bëgg mu dugal. ñaangal bi dama ñaaw rek. ñaaw da nga ñaangal. ah dama ko damay damay sibir match. noo tudd. man Papa laa tudd. Papa noo gisee match tey. match bi ah maa ngi koy seetaan ne. bëggoon bëggoon Sénégal dugal kay. nan nga gisee Sénégal tey. ah Sénégal am nañ si yaakaar de. waaw boobu ba léegi ñu ngi koy seetaan am nañ si yaakaar bu baax kay waaw. kon moral bi baax. moral bi baax na kay. waaw gis nga loolu la ñuy kii nii de. instant bii bi bii bi lu muy xaar. instant kay gaynde yi ñoo war a yëngal pot yi. man teef. noo gisee match tey. waaw boo gisee match bi tey gars yi nu ñu joué nii ak yeneen match yi nu ñu changement mi ngi am ñu ngi dundee yaakaar nañ leen ñaanal rek yaakaar bañ a tas. daal. waaw am naa yaakaar daal ci changement bi ak joueur yi joueur yu bees yu ñu jot a tey daal. mais yëngalal bu tey yi bokk. non day nañ nañ ñaan rek. tàllal leen ñu dafay ñaan tàllal leen ñu dafay baal ma rek. sénégalais laa kay. maxi ban ah, maxi bi moom neex na moom. lu ma si wax. ñaan gañe rek. gañe rek. gañe rek ah. man Mady Mbaye laa tudd ay gaynde voilà merci. da nga mer. non xam nga la. wax nag. ñun mënuñoo am ay gér. noo tudd. Bada Diouf ñun ñun doonuñu ay kosu mais ñun xam nañ football dañuy yàgg di si daan nooy jëlee ñett système de milieu Gana Gueye Nampalys Mendy Cheikh Kouyaté même système la ñuy joué gis pourquoi ñoom ay milieu offensif ba pare duñ ko teg Pape Matar Sarr nañ ko teg relève lu muy joué FCMS Pape Matar Sarr milieu offensif la Sadio Mané nañ ko yóbbu ci côté bi. mu ne moom Sadio Mané mënul di ñëw ci milieu terrain bi récupérer bal bi yóbbu ko mënul nekk il faut ay milieu offensif yoo xam ne dañuy capable téye ballon bi devant l'attaquant jox attaquant ñu mën a jouer mais boo jëlee maa ngi see seetaan léegi deuxième mi-temps yaa ngi ne da nga a gagner di changer poste pour poste yow équipe adverse dem sa sa biir sonn kenneel sa benn six nga dugal benn milieu offensif gis naa ko mu génne Nampalys Mendy dugal Pape Gueye même système la pourquoi ko Sadio Mané nga yóbbu ko ci côté bi ñun dañuy seetaan football xam nañ lii football xam nañ lii lu si ko football football ñëpp xam nañ si dañuy seetaan football mënu na danga bëgg a gagné en tant que équipe bu qualité yi te ñun ñoo gën fii ay joueurs mais xamal leen équipe bi gënuñu leen collectif Coupe d'Afrique collectif mais mën nga am bon joueur mais doo am équipe bu collectif loolu rek lañ ñuy gagné merci. kontaan naa si benn côté rek instant ñoo nekk première mais 200 kon si équipe bi moom ndax 3 90 minutes sans marqué bii en tant que favori si équipe si bi man comprendre na lu xew. noo tudd. Cheikh Samb. kon looy ah, di leen ñaanal kay di leen yokk ñu yokk jom mais liñ fubal tey moom ah kana bii bi moo des sa waaye. kontaan xam nga nag am loo xam ne euh, ñun dañ du koy ndax ñun ñi fooy nañ ay nawetaan non meruma dama kontaan dama lu dama kontaan xam nga match la lii lii euh, kii bi euh, euh, comme on appelle bi du course de vitesse du course de vitesse xam nga course de fond la kon Lions yi biñ comme qualifié nañu ils sont premiers de leur poupe poule nañ leen waar huitième finale xam ñun fan la ñuy dem finale direct mooloo mooloo rek ba yegg Demba Gabriel torop sax toujours ko naan dama xam ne sama camp dama ko tëjee Casamance Guinée Bissau kenn du ma dóor. parce que dara. normalement lii moom du